jërëjëf mbokk internet Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di amaat un réel plaisir euh, di ñëwaat comme ni ñu koy faral di defee rek ci suñuy entretien spécial fas yéene koo tijjee nag ponk bu am solo muy recommandation yi nga xamante ni nii euh, ginnaaw ba ñu amalee ab dialogue liggéey ci presque juróomi fan euh, démb la ñu daal di def li nga xamante ni moom mooy clôture bi fas yéene nag jël dossier bi jébbal ko ki nga xamante ni moom mooy son excellence monsieur le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir xaarandi rek yan décision lay jël ci recommandation yooyu ñu ko jox donc ñu fas yéene ci jukki rek quelques points waxtaanee ko ndaxte bokk na ci li point bi nga xamante ne nii ah, ñu bëri ànduñu ci maanaam dañ ci am problème mu consensus muy conseil supérieur à la magistrature ndax ki nga xam ne moom mooy président de la république daf ca war a des wala dafa war a dem ñii ne oui ñii ne non donc mu nekk question boo xamante ni nag euh, dernier mot bi mu ngi revenir ki nga xamante ni moom mooy euh, njiitu réew mi donc bu ñu jógee ci ponk boobu gis ngeen wàllum euh, fis dette fiscale bi nga xamante ni ñenn ci presse bi ñu ngi leen koy toppee te boobu ba tey amaguñ ci li nga xamante ne moom mooy seen vraie version des faits ndaxte ku ci nekk yaa ngi génn di wax mais en tout cas mbir yi ku nekk ak ni nga ko gisee fi ñu koy jeexalee nag dañuy ñëw très rapidement ci li nga xamante ne nii moom mooy euh, sortie yi gouvernement bi war a amal ak euh, li nga xam ne moom mooy gouvernance euh, publique bi naka lañ koy defaree ba mu gën a ñoŋ ndaxte jàpp nañ ni act yi nga xamante ne moom la Sénégal lay di xaar moom mooy ay actes yu concret ba tax na dalal nañ fi ki nga xamante ne moom mooy Diouf Lambaye ku wax Diouf Lambaye nag wax taxawaayam ci biir Pastef ak pas-pasam ci biir parti boobu ñu yàgg koo gis ràññee ko ci lool ba Pastef toll fi mu toll nii donc moom lañ fi dajeel di ko wax di ko jox wàccuwaayam di ko bàyyi mu présenté bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu Diouf Lambaye. jërëjëf soxna Lalla ñoo ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yëpp fu ñu nekk ci biir réew mi ak biti réew waaye di jiital ci nuyoo bi euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général de suñ borom defal ko sutura ak kàttan ba yéene bi mu am liggéeyal ko maamam liggéeyal ko umma islamique bi ak mboolem xalif général yi nekk ci réew mi ak jàngu beek kilifa aada yeeg ñëpp daal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di ñaanal aussi président Diomaye ak le premier ministre président Ousmane Sonko ak mhm. mbooleem membre de gouvernement di leen ñaanal tawféex ak sutura ba yéene bi sénégalais am ci ñoom su fekkee yéene ba ma nga fa yàlla na ko bu fekkee yéene ba ma nga fa yàlla na ko yàlla wisaare tawféex ba li nit ñi xaar ci ñoom ñu gis ko bu dee yéene ba nit ñi yéene nekku fa yàlla na ko suñu borom def am na solo alors euh, euh, dama annoncé léegi point yi mu bëri mais dafa am information bu ñu dab léegi ku ne xam na ni diggante Thérèse Faye Diouf ancien ministre ak Cheikh Bara amoon na lu doxoon seen diggante ba ñu demoon ci yoon. niki suba tamit euh, convoqué waat nañ leen fële ca ngir wëyal ab plainte boo xamante ni rek Thérèse Faye bindoon na ko jëmale ko ci Cheikh Bara nee na jàpp na ni daf ko diffamé suba nag woowaat nañ leen fële suba 10h. xam nga. loolu moom mbiru justice la comme teew na ci fa mbaxana doone benn euh, li ñu war a def rek mooy xool ba xam fa wànne di mujjee ki gëtam waaye euh, tamit booy xool euh, li Cheikh Bara wax kenn ku ci nekk mën nga koo attewoo ci ñi nga miin ci waa APR mm-hmm. ndax démb ak bërki démb kat mënuñu fi nekk Euh, di duggandoog nit ñi ci car rapide yi am na ci ñoo xam ne bu ñu doon ñëw émission 2012 euh, buñ buñ doon ñëw émission seen ginnaaw yére yi day koy xib ndax bu ñu wàccee ci car yi xel yi ñuy daw ba keroog ñuy dugg ci média yi tey ñu yor ay xeetu oto yoo xam ne boo demee seen parking képp mën naa ne un milliard dafay gaare loolu maanaam kenn ku ci nekk ñi nga xam wala nga jege leen wala nga maîtriser seeni mbir soo waxee ci ñoom loolu man mënuma ci weddi dara wax fa dëgg yàlla waaye nag comme dossier bi teew na ci loxol yoon yaakaar naa ne tamit ñoom lim ci jublu mooy euh, la la la waaj a waxoon waa ji dafa dem Louga di fa tooñ ab kilifa diine mhm. taalibeey sëriñ ba jàpp ko dóor ko fa dóor yu metti ëllëg sa mu demaat ci beneen dëkk am ku ko seen ne ko sawaay yow xàmmee naa la mhm. mu ne ko bu dee Louga waxoo dëgg cest moom Louga la fa tooñe woon ñu dóor ko waa ji dafa ñëw ne ko xàmmee naa la rek xel mi dem ci Louga loolu mooy ku ku moom xar mi nga bàyyi buum bi waaye xam foog naa ne ñoom am na loo xam ne mi ngi leen di xaar te ke ku xam dossier yi wala nga yëg ci dara wala sa yaram ci dara ak jafewaayu réew mi ak mettiwaayu réew mi fii mu toll te dara waralu ko lu li nu ni nu def alalu réew mi jël réew mi saax saaxee ko ba pare mii ne gouvernement bees bii ñu fekk nga xam ne kër gu nekk da ngay gis foo xam ne presque 500 personne ñoo fa waroon liggéeyee ñu jël 2000 personnes def ko fa te dañu bàyyi bay waaja dem nga xam ne ñoom salaire yooyu sax ñoom duñ ko fay waaye dañu bëgg direction yëpp ko fay ñëwaat ñëw fekk fa euh, salaire yoo xam ne ak charge yoo xam ne euh, bërëbu liggéeykaay ba du ko attan bu ko defee sénégalais yi commencé jóg taxaw sajj xeef président Ousmane Sonko waaye na nga xam ne ñoom tappale yi ak stratégie yi ñu doon def sénégalais yi dañ koo xam te loolu li jokk tax ñu jëlee leen fi indi fi son président Diomaye ak le premier ministre euh, Ousmane Sonko jafe-jafe yooyu moo tax ñu jële leen fi ak ni ñu doon def di manipuler askan wi di di dund ci ndoddu askan wi te lépp ñu teg ko ci tappale su fekkee nag bëgg nañ fee ñëw ba dem mhm. te duñ fi def dara ludul bu ñu demee ñu continuer tappale yooyu wala ñu teg ndëgg sërëx loo xam ne gars yi duñu xam duñu am itinéraire parce que tey rek dafa am ku ma woo euh, benn directeur société bu mag bu ne ci dëkk bi di ma wax ne fan yi ñoom dañu am ay jafe-jafe seen vente yeeg yu baree bari dafa wàcc vraiment ne ma daal sëñ bi yëf yi moom banque yi sax da ngay dem léegi doo fekk xaalis jafe-jafe yu bari ci réew mi ne gars yi ñemewuñ ko wax waaye fii ci kanam xam naa ne dina gën a dina gën a dina gën a jëm ci kaw. Mhm. ma ne ko nag man wax fa dëgg yàlla loolu bettu ndax bu fekkoon dëkk bi amul ay jafe-jafe ñi fi nekk duñ leen fi jëlee ñaareel bi li ñuy wax ne euh, direction boo dem wala ministère boo dem la fa cour de compte épinglé ak yeneen. ëttu toppukaay yi lañ fa lañ fa épinglé ci ay dossier bu fekkoon ne tey réew mi mën nay continuer jamono jii muy neex kon nga xam ne ñoom jëluñ dara waaye li ñu jël kenn ku ci nekk fa nga nekk su fekkee 1000 milliards ñoo fa nekk presque 500 yi danga ko da jël ñu randal ko ci loo xam ne naka sulul noonu la ci ñu ci loo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët vraiment tey la nga war a dunde def ko sa magasin bu fekkee nit dafa ñëw dajji magasin ba sàcc sa dund vraiment boo doxee tuuti yaakaar naa di nga am jafe-jafe dund te lu ci baree bari sénégalais yi xamuñu ko may ñaan état bi ñu gën a baral jéego yi gën a leeral sénégalais yi difficultés yi ñu fi fekk ak jafe-jafe yi ñu fi fekk ndax tey da ngay gis benn dossier mu génn képp tey mën a tukkal àdduna parce que maa ngi gis léegi nii am ay réforme justice bi ñu teg dinaa ñëw foofu tout à l'heure c'était juste que dama doon bëgg ñu ñu commencé ko ci information boobu nga xam ne mhm. léegi la wàcc alors mhm. balaa may duggaat ci point bi nga dugg léegi danga laal justice bi muy tey euh, dangeen ngeen woote rupture hmm. rupture bi Pastef woote mooy justice bi gën a ñoŋ gën a am indépendance donc conseil euh, supérieur à la magistrature maanaam euh, Bassirou Diomaye fay mu génn completement ci pouvoir judiciaire hmm. ba ñu àggee ca point boobu ñii dañ ne ànd nañ ci ñii ni ànduñu ci hmm. waaye dernier mot bi Bassirou Diomaye fay lañ koy jébbal parce que moom mooy décider mais tey en tant que yéen membre biir Pastef wala coalition Diomaye ban position nga mën a jël par rapport ak loolu. waaw loolu xanaa di ko di ko rafetlu xam nga ne tey lii nga xam ne digoon na ko askan bi ne bu ñëwee rupture dina am fépp même justice bi dinañ ko xoolaat boo gisee li ni mu déroulé rek nga xam ne euh, la mu waxoon nit ñi mi ngi koy génn parce que na nga xam ne conseil ba amoon jam ñaajo dañu dajare acteurs yu baree bari. Mhm. fànn gu nekk dañ fa jël. fépp fu ab sénégalais nekk nga xam ne may nga wala avocat nga wala nga mas a am ay jafe-jafe ci justice wala ngay sénégalais lam daa wala loo mën a doon rek mhm. dañu dajale sénégalais yëpp dajale leen jam ñaajo bu fekkoon ne moom moo def conseil des ministre léegi di xool justice bi nan lañ ko mën a teg ak ci ci ci yan tànk lañ ko mën a teg ba tey sénégalais yëpp gis ci seen bopp sénégalais yi ni nga xam ne seen diggante ak justice noonu la demee nga xam amatul confiance amatuñ benn yaakaar ci justice nga xam ne yow mi tey boo amoon problème ak ki nga ki lay liggéeyal fii yàlla bu am boo demee sa xel du dal parce que dangay xam ne moo la gën a gudd loxo tey boo amul xaalis lu baree bari mënoo ko rek régler fii parce que nit dala daan tooñ liggéey loola dàq la nga dem euh, nga dem justice waaja du ma la fa waaye xam nga ne yor sa ay pouvoir ndax pouvoir yi ñu war a jëlee ci moom yi ci ëpp yëpp moom ci loxoom la nekkoon su nekkul ci loxoom it nekk ca loxol procureur bi nga xam ne mi ngi dépendre ci ministre de la justice ministre de la justice di ko déglu mhm. moom mën naa ne la bu fekkee vingt pouvoir la amoon dafa ñëw teg 15 yi ne nañ ko delloo moom 5 yi rek baax na waaye xam nga nag euh, cëgul guy daa mënta ñàkk ndax affaire yi lu mu lëj lëj moom la sénégalais yi fal. Mm-hmm. te bu demee ba jafe-jafe am ba yëfi lëj ba kenn xamatul fooy gindikoo xel ci kenn rek lay dem muy moom. Mm-hmm. moo tax teyit man la ma fa dégg vraiment dama dama noyyiwaat sama xel dafa dal parce que justice dañ ko tabaxe woon ci tubaab yi dañ maanaam réforme bi dañ ko war a gën a yokk. parce que tubaab yi dañu xool ñoom li méngoo ak seeni i dund xool li méngoo ak seen seen diine ak seen aada ak seen réalité. ñu tënkee ko seen constitution ñun ñu ñëw copier ko. Mhm. kon daanaka loolu daf ñuy alal. moo tax man lii ñu def sax lu baax la mais bëgg naa ñu yokkaat ko dama bëgg su si sénégalaise ak euh, article yeeg yëpp ñu sénégaliser ko ba nga xam ne dina méngoo ak sunu diine. nee ñu sénégaliser ko ñu sénégaliser ko waaw xam nga instant bi dañ ko copier rek. non dañ dañu dañu dem France copier fa justice rek nañ wax d'accord article yeeg bagage yooyu yëpp bagage yi France la mhm. léegi nag dañ ko war a sénégalisé xool ko ba mu méngoog suñuy réew ak suñu aada ak suñu cosaan ñu delloo ko fa waaye tey benn article dong man mhm. imagineel tey vol de bétail ñu criminaliser mhm. boo sàccee benn xar mën nañ la tëj sa ngir gi dund parce que dañ ko criminaliser yow nga gis benn sénégalais boo xam ne parce que loolu boo koy wax sax ci ci nu ñun politiciens yi xam naa ne loolu bu ko yëkkati woon mais képp koo xam ne tey cour de comptes da laa war a épingler ñu gëstu ko ba nga sàcc àll réew mi loolu dañ ko war a criminaliser loolu mooy farat xam nga sax escroquerie foncière waaw koy loolu lépp waaw bokk na ci recommandation yi c'est juste que ñun quelque rek lañ jël mais xam nga man fi ma bëgg ñu accès fa débat bi mooy tey yéen mënu leen fi taxaw ngeen tenir benn discours ne da ngeen bëgg rupture donc ci biir rupture boobu bokk na ci li nga xam ne moom mooy promesse bi ba Bassirou Diomaye Faye defoon mooy mu retirer loxoom ci justice bi. waaw yaakaar naa bu yëkkatee retirer loxoom ci justice bi loolu dina bokk ci li nga xamante ni peut-être dinañ jàpp ni li mu li mu waroon def ak askan wi def na ko. waaw xam nga tey retirer loxoom ci justice moo tax mu jël justice woo acteurs yi ko seq ne leen nañ ko waxtaane mhm. d'abord loolu signal fort la buy wane na moom pare na. pour li ëpp ci li mu yoroon ci loxoom ci ay pouvoir ak procureur yoroon ko pare na pour delloowaat ko euh, justice mhm. nga xam ne mais boo gisee lii xew euh, doy na sëkk mais xam nga tey waxuñu waa bi bi ñu demee waxtaan waa Pastef ñoo opposé ne li nekkoon ci loxol président de la république nañ nañ ko ci nañ ko ci bàyyi. Mhm. xam nga du waa Pastef ñoo opposé du pale ñoo opposé dañoo nekk di waxtaan am waaw ñii ànd ci ñii ànd ci ña ci ànd ñii APR lañ bokk xëy na ñii société civile lañ bokk ñii feneen mais lu tax nga féetale leen APR non non pas mën a bokk APR sax mun na li ma li ma jubloo wax fee du waa Pastef ak waa justice ñoo fa daje sénégalais yi ñoo fa daje mhm. ña nga xam ne tey am na ponk yoo xam ne déggoowuñ ci parce que président de la république moom lañ fal bu demee ba can ci benn mbir moom lañ ko war a delloowaat parce que moo yor kàddu gu mujj gi waaye du caage ne président la république moo taxaw dóor ci taabal ji ne li ak lii nekkoon ci sama loxo nañ ko ci bàyyi buñ ko dindi mhm. xam nga demewul noonu mhm. mais dama lay expliquer lu ëpp solo mhm. ci li nga xam ne tey liggéey nañ ko fa ci ñetti fan yi jox ko ci jox ko sénégalais yi imagineel yow bu fekkoon da ngaa sàcc benn xar ñu criminaliser ko benn xar kenn nit a ko moom nga fekk alalu askan wi mille milliards ci dëkk boo xam ne tey mhm. mënuñoo jalis mhm. nit ñi mënuñoo jalis mhm. nga fekk tey nga dem ci hôpital yi foo xam ne amuñu coton wala tey euh, seen seen plateau médical faible wala gaz sax di fa manqué wala yenn nécessaire yoo xam ne mooy tax nit ñi di faatu du ñu leen jël en charge nga gis ñu accidenté tey ñu téye leen ci bunt bi di leen laaj xaalis bañ faatu lan moo tax loolu parce que ñi nga xam ne dañ leen di jox benn direction wala ñu jox leen benn ministère ñu jël fa ñu sàcc fa ay milliards yu bari yoo xam ne du Moustapha Diouf Lambaye moo ko wax mhm. mais Cour des comptes moo leen épinglé ci lu Sénégalais yépp xam mhm. foog naa ne dossier yooyu lañu war a jël criminaliser ko ba ku fa toog xam ne alal ji boo ko jëlee sa faatu xaj na ci wala man nañ la condamné à ñaareel bi foncier euh, maanaam escroquerie foncière escroquerie foncière mhm. suuf si niñ koy niñ koy def doy na waar ba pare ñu audit ko delloo ko presque dix ans ci ginnaaw d'accord taxawal tuuti ma ñëw laal la bul ma sarax saraxee foofu li fi des dafa am solo ma bëgg ñu ma bëgg ma bëgg ñu gën fi yaatal suuf si mhm. ala kulli xaalin bu fekkee dañu bëgg location wàññeeku mhm. su fekkee dañu bëgg ndaw ñi bàyyee dem ci gaal gi mhm. mbayum noor mi balañ ko mën a def suuf si nañ ko delloo seeni borom boo demee leer ak yeneen dëkk yi nga xam ne milliardaires yi ak ak ak businessman yi ak opérateur économie dañ faa dem nungu seen suuf yi nañ ko delloo baykat yi ba pare wutal leen ay titre foncier nga xam ne kenn dootu ci mën a tax également li tax mbayum noor mi mën a déclencher ñu wutal leen ay forage ba pare bu leen wutalee titre foncier ku ci bëgg a bàyyeti ñu ak banque agricole dooleel leen ñu def fa tayle seen crédit mën a noor parce que mbayum nawet trois mois mënoo cee bay dund ci at loolu mënul nekk c'est impossible kon nañ leen jàppale li jiitu mooy wutal leen titre foncier mbayum noor nag li ko mën a doxal ku wax roose wax forage ñu wutal leen forage ba pare banque yi bu ñu leen di jox ay financement ngal la ñu former leen wut ay ingénieurs yu day yóbbu ci àll bi su ko defee su ndaw ñi delloo ca dëkk ba nga woon leen lu gën ndakaaru ba pare dàq ko dinañ bàyyi dem ci gaal gi ba pare ndakaaru dinañ ko génn dem ci suñ dëkk yi man mii làmbaay laa dëkk la ma fa bëgg lépp bu fa teewoon ndakaaru gii dootuma fi nekk di xat-xatloo su ko defee lool bu amee nit ñi dinañ replier wu ñibbi location gën a wàññeeku loolu moom ministre premier ministre na ci gën a taxaw ministre agriculture jàmbaar la mais nañ ci gën a focus gën ci taxaw waaye daal justice Sénégal moom dañ ko war a xool bu baax a baax a baax imagineel tey yow daf da ci bëri ay loi yoo xam ne kenn xamul loi lan la yow laal la tey yow boo dee def commerce man Moustapha Diouf Lambaye mu ñëw leb say sa sa marchandise avance la dara tey ma leb sa cent millions avance la ci benn bu doon benn un million nga defaral ma facture su ma la fayul 95 millions yi soo demee plainte dañ naan avance na te da nga koo lebaloon que kon heure bu amee fay kenn du la woo def la garde à ñu ci baree bari noonu lañ lekk alali jàmbur loolu yooyu yooyu dafa doon ay mbir yoo xam ne justice bi dañ ko war a tëggaat des fois nga yoreel nit bor lan lañ lay wax xañ nga mën a fay ak ñaata nga mën a fay nit ñëw ne weer wu nekk ma dugal ci ñaar téeméer yooyu nañ ko xoolaat ak mbirum locataire yeeg yooyu yëpp bu ko defee ñu xoolaat ci justice bi daal li ma la mën a wax mooy li ma doon wax toujours ci euh, ci lu mel ni douane wala affaire yooyu dafa bëri yàq yoo xam ne ak jafe yoo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund parce que exemple mi ngi mel ni nit yor ay taab yu baree bari duwaan joggi la ci geneen taab gi soo demee police joggi la ci geneen taab gi boo demee euh, ka nga séq ka nga amal problème su siis joggi la ci geneen taab gi waaw non maa ngi ñëw xam nga man bokk ci wax li tax ñu falu aussi du ma teree wax sama xalaat te lii may wax dama bëgg jomaay ak Sonko gën ci focus pour xam ne lu ci baree bari du jëmmi état bi moo koy def wala ministère bi wala président de la république waaye direction ba ñoo koy def ci ndoddu sénégalais yi te boobaa bu sénégalais yi étouffé bu nu bu nu bu nu bu nu gësamoo ba yëlbu conséquence bi ci président république lay delloo yow imaginel ma jox la rek waxuma la magasinage yi nekk euh, ci ci port bi waaye imaginel yow nga dem ñu ne la boo bu fekkee da nga war a fayal sa auto douane dangay ngay gis benn transfert nga waxaal ak moom fay ko mu génne la sa conteneur nga dem fay transfert mu dem douane ci colonel bi ñu wax ko ne ko oto sàngam bu nekk temps nga ci war a fay mu jël loola fay ko ñu jox ko CMC mu dem miite otoom di ko dawal duwaan dabaat la ne la li nga fayoon daa tuuti te colonel bi defaroon la facture dóor ci fayee ko mais loolu loolu loolu xanaa colonel ba la ñu war a plainte mais loolu nekk na jëf yoo xam ne waratutul am Sénégal président la République ak euh, président Diomaye fay ak président Ousmane Sonko nan ci wax loolu sénégalais yi ñu ngi koy jooytu mbir mi metti na metti na metti ba fa ya metti yam boo xool nag politiciens yi buñ di masaa di réforme justice beeg yooyu ñoom lépp loo xam ne day dal ci seen kaw dañ koy tegg nee lépp loo xam ne day dal ci askan weeg néew góor yi ñu renforcer ko yow nan nan la mën a jàppe ngay tux yàmbaa ñu ne la tux ak jaayu yàmbaa dañ koy criminaliser ba pare ki sàcc mille milliards sénégalais yi bu bu ñëwee ñu taxawal ko grand franc dali wala sax léeg duñ ko jàpp mu dem kaso te léeg-léeg nga fekk nit muy tux nga colomotive ko ne ne ko da ngay jaay yàmbaa ñu criminaliser ko jëf yooyu tey maa sax ñu ne lu mel ni tux wala yooyu dañu pare pour ku ko defati fay parce que dafa bëri yoo xam ne tey nan ci góor góorgóorlu detation euh, yu bari yi ñuy def nit ñi amul njariñ 100 ñu duy ko ba mu fees loolu amul benn njariñ mhm. kaso yi ñi am peine yu ndaw yi nañ leen fayloo wala ñu takk loon bracelet mhm. ba pare kaso yi ñi ci am peine yu mag ñu yóbbu ñu toxal kaso yi côté Richard tool mhm. Sénégal tey li tax président de la république mënta wàññi dund gi mënta wàññi ceeb ak diw parce que ceeb bi fa muy jóge dafa sori Thaïlande ak feneen fa muy jóge tey ñu sarse ko ci bato yi mu jaar mer Rouge te ku ne xam na ne problème Ukraine bi jafe bu rëy rëy la léegi li nga daan fay boo daan fay euh, boo boo boo daan fay un million deux millions léegi mën nga fay trois millions parce que bateau yi fi ñu daan jaar direct léegi dañuy wiiri ndax jafe-jafe Ukraine bi Ukraine bi ak jafe-jafe bi xew Palestine ak ak Israël mhm. jafe-jafe yooyu yëpp boo ko boolee moo tax bi mu nee nañ nañ na ma acteurs yi xoolal ma xool ban yoon laa mën a jaar wàññi dund gi ñii profitoo sax di yàq naan ay dafa waxoon ne la quinze la koy wàññi waaye dane woon nañu ma indil ñëpp ñu séq secteur bi tax ma xool ba xam lan laa ci mën a wàññi biñ ko indee moo xam ne ñoom moom Sénégal bayuñu ceeb bi liñ fiy bay munuñoo dundal tey ñu baree bare ñi ngi wax ay mbir yoo xam ne lu dul bëgg FMI ak banque mondiale am nañu taxawee ba dëkk bi la jafe-jafe yu bari am fi yooyu yëpp ñuy installé lu yu demee noonu la kon na nañu gën a góorgóorlu gën a xippi seen xel xam ne man tey bu doon politiciens yi fii nga xam ne jéggi na ko ci xool xam ne ceeb bi indiwu ko fi te ñu ko fiy indi dañ cee war a am bénéfice war ci am dara bi mu ko xoolee xam ne mënu koo wàññi dafa génn ak sénégalais yi ne bu ñu bëggee ceeb bi wàññeeku nañu bay di dunde su ñu bëggee bay di dunde nag ponkal yi ñu jël def leen ci kaso bi ñuy tëdd ñu leen di dundal di ci fere ay milliards ñii di génn ci kaso bi di ci jëlee ay tawat génn ca faatu senes bi di faatu loolu amul benn njariñ képp koo xam ne tey tëj nañ la peine bu bari nañ la yóbbu ko teri sa tool ngay bay su ko defee ñu lay formé waale boo génnee boo fa amee sept ans soo génnee di nga génnaale bu doon benn 40 millions wala 50 millions soo génnee d' abord am nga xam-xam parce que daa nga bay bu la neexee cinquante millions yooyu nga def ci sa entreprise nay bay su fekkee ne yow ñaawteef yi nga daan def ak coono moo la ko tax def te nag ñu bari bëri na ay bandi ak ay ñuy jaay seen bopp xiifa leen ko tax a def am na ñoo xam ne être euh, ñàkk moo ko tax def mais am na ñoo xam ne xiif moo leen ko taxa def bu fekkee xiif moo la ko tax a def kon jafe-jafe yooyu yëpp bu soobee mhm. yàlla mën nga cee génn reprendre sa sa vie nga nga nga mën a jariñ réew mi quoi muy euh, militant Pastef bi ñu arrêté woon muy Alassane Sall Alassane Fall du moins donc ñu ngi koy toppee outrage à la magistrature mu nekk membre Pastef mais malgré loolu ba mu waxee lu waxuwul euh, dañu ko daal di jëli fa mu nekk fi mu nekk ni sax dañu ko defeere amoon na retour de parquet en attendant ñu xam fan la wànnante di mujj ki gëtam mu mel ni justice bi bu njëkkoon comme ni nga ko daan waxee ñu ngi toll ci réforme mais malgré réforme yooyu euh, ba tey ñu ngi wéyal arrestation yi. waaw réforme bi boobu ngay wax ne bu fekkee militant passif la en tout cas xeexkat la woon. ñin activiste la nit ñi xàmmee nañ ko ci xeex bi waaye bu ko man loolu bettuma ci Sonko waaye bu ko defutoon dina ma bett du sax Sonkooy jàppe wala muy bàyyee waaye ka fi nekkoon ne justice dossiers yi maa ci teg sama cooñ ku ne xam na ne moo doon jàpp di bàyyee. waaye man mbir mi yéenewuma kenn kaso mais moo war a am la baa jaxate wax bañ teg ko loxo bu Moustapha Diouf Lambaye waxee moom mi bokk Pastef loo xam ne naka sul noonu dañ ko war a teg ci yoon ndax rupture lañ doon wax changement lañ doon wax te li mu wax man dégg naa ko xay na dafa juum jéggalu na nañ ko jéggal te yàlla tax waaye tamit nañu xoolaat kàddu yi te xam ne ànd ak président la république taxawul ngay taxaw di wax lu la neex su fekkee nag président la république man xam gi ma ko xam xam naa ne su fekkoon doomam ma ko def gëm naa ne heure bii ma nga 100 mètres loolu laa xam ci Sonko parce que nit ku dëggu la nit ku jub la man loolu laa xam ci moom te loolu moo ñu booleeg moom kon lii mu def bettuñu te loolu moo war a am tey justice wër ta xàmmee kumba am ndey ak kumba amul ndey yàlla bu mu am mais ko deux mille 2024 bii wala deux mille vingt cinq 2025 2024 2025 cour des comptes bu épinglé ñii ñu fal bu bu bu dossier bi génnee balaa mat mois dinañ jàpp ko ko def waxuma la ñii àndoon ak moom di xeex de ñii mu fallaar jox leen ay ndomba tànk parce que Sonko du protéger kenn xam nga jafe-jafe yi waa APR njëkk am bu njëkk da ngay këpp alal réew mi ñu ne wiiw nga daw cib sëriñ mu woote waaye fi ne nii ñi nga xam ne épinglé leen ñu leen di karkaral fi ne nii kenn ku ci am repère amut parce que koo daw ba egg ci moom da ngay xam ne kii ngay wax yaay wax waaye moom yebut Sonko gars yii di daw di laqatu naan na na ah mais day jeex. képp ku ñu. mais mais xam nga yow yaa xamul ne ñoo jël dossier je veux dire. yow yaa xamul ne ñoo jël mais Moustapha Diouf Lambaye mii ñëw fekk ku daan dawal Jakarta wala fekk ku daan dawal ab Renault 21 nga dem fekk ko mu mu mu mu gaare ñetti Range Rover 2023 biographie suppa caace oto bu la 200 millions mayut nga gaare ci juróom rafet rafetale ko sa kër fu nekk Sénégal nga am fa kër amub tool. Mm. jël ab teen. teen xam nga teen ndox ko taxoon a jóg mais gars yi danoo peroŋe kii bi dañ koo dër karo ko luy ci teen ay xaalis ba mu fees mais lu tax dëkk bi amee jafe-jafe waaye yow pour maanaam société yi doon jaay ay produits mënatuñoo jaay ñëpp a dem fay société yu nekk à place doon jaay lekk di jaay ay produits laitiers affaire yooyu ñëpp am problème xam nga lu tax xaalis bi doon circuler la ñu sàcc ba pare def ko ci ay kaaw mais alal ji ci dëkk bi bu circuler tut ñëpp ay am jafe jafe-jafe yooyu conséquence bi moo commencé ñëw te ñoom PS bi ndëgg sarax bi lii da cee bokkoon su ñu jëlee alal réew mi fépp foo xam ne fonction publique vingt personnes dañ fa daan liggéeyee ñu def fa cent personnes ba kenn du ko mën a fay ba pare ñu sàcc alal réew mi def ko ci kaaw loolu mooy bu ñu doxee tuuti du ngeen mën a fay salaire mais man li lii bi mu amee moo tax ma gën a confirmer ne dossiers yi ñoom Sonko ak Diomaye tiim sénégalais bu ko tiim mën nga caa jaare faatu wala nga dof lu mel ni deer ak foncier bëgg yu ma la mën ta wax yow benn benn benn entreprise benn kii bokk benn euh, kii nu mu tuddati waay foncier xaw ma DER. DER mhm. foo xam ne cinquante nangam milliards moo fa nekk. Mhm. sëñ bi mënoo génne trois personnes yow ci finance man Touba laa dëkk. moom nee si financé am na ci ñoo xam ne dañoo dese. am na ci dani ñi ma financé dañoo dem ci gaal dañoo dem ci xam nga daa am kilifa gu mag gu doon wax kuy dem xare neex a ñaanal kuy dem guerre ndax bu dikkaatul du la fayeeku bu dikkaatee ne yow yaa ko ñaanal mu dikkaat bu fa dee doo gis kenn ku la ne yaa ko ñaanaloon mënoo waaye loolu moo ci nekk xam nga ku dem ci gaal gi neex naa tuumaal ku dee ci géej gi neex ngaa tuumaal mais man liñ doon def mooy képp ku bokk APR mën nga am ci financement yi te buñ déclaré buñ déclaré cinquante milliards na nga xam ne deux milliards moo dem ci population bi mais leneen lépp dañ koo këpp mhm. mais tey bu taxawee moom ñu dem cour des comptes ko ñu koy laaj muy taxaw naan ñi ma financé woon alal ji dañoo dem ci gaal gi c'est normal amul benn jeune Sénégal boo mën a gis boo xam ne tey bénéficié wu na ci DER wala benn jumtuwaay benn benn banque boo xam ne état da koo taxaw pour mhm. financer ndaw ñi mhm. DER ak yooyu moom li muy jariñ mooy financer waa APR parce que maa ngi doon wax naan bourse familiale nga jox sa ay militant bourse bii ku bokkul APR du ko ñam loolu moo am ci DER moo am ci FONSIP moo am ci yeneen dañ ko doon wax naan dañ la doon wax sax liggéeykat nga waaye boo bëggee ci financement yi ñu jox la 100 millions ñëwal APR parce que loolu man yàgg naa ko dégg en tant que Moustapha Diouf Lambaye ma ne leen même man su may tëdd ci naaj wi ci ngor dee ci naaj wi moo ma gënal dem tëdd ci kër gi ci goreeti waaye tey anamu jeex na takk te daanaka liñ ci amoon lépp léegi ñu commencé koo fajoo parce que yàlla maanaam mbir mi nëbbatu ko fu sori ki war a jalis nga ne daxeet la mu waroon a jalise lekk yaakaar na day rees barki seexul xaddim boo gisul tey di nga ko gas suba d'accord Moustapha alors fi ñuy jeexalee muy dernier point bi muy wàllu dette fiscale mhm. euh, ñu am ci yenn euh, patron de presse yoo xamante ni euh, jàpp nañ ne war nañu fay impôt bi coow li jógee dégg nañu sax tey ma jambal sorti bi mu def ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy inspecteur des impôts bu ñu doxaloon seen rôle dëgg ñi war a fay dinañ fay xëy na peut-être euh, xamuñu ban contexte la ko waxee waaye fu ñu toll nii euh, euh, même ñoom seen biir sax ñu ngi koy commencé di di waxtaanee seen biir ba parce que El Hadj Ndiaye génn na ba xamal leen ni ak lu mun munti xew waroon ngeen mën a fay impôt balaa ñoo yegg si fii ñoom nag ku ci nekk joxe nga sa version daal. xam nga man bala maa yegg si foofu man yéen da ngeen a bokk ci secteur bi yàq réew mi te kenn ñemewu leen a laal ndax nee nañ yéenay quatrième pouvoir. mais da ngeen a bëri ci yéen ñoo xam ne ci caaxaan rek ngeen nekk la Sénégal set du ñëpp nag mais am na ci ñoo xam ne ni ñu gis nga aide de la presse moom lañ war a njëkk a dindi. lu tax duñ ko dindi yéen lan ngeen defal Sénégal quand seen presse bi seen ëttukaay seen ëttu seen seen maanaam seen seen seen société presse yi mais privé la. mais li ngeen ci am seen kër ngeen ko jëmee jokk seenu njaboot yéen ak ki yor bitig bi yéen a yem ci réew mi buñ joxee aide de la presse ki ne ci presse bi borom bitig bi dañ ko war a jox aide mais pourquoi mais lan moo tax mais léegi état warul warul warul dimbali kenn ñi muy dimbali presse ci bokk mais mais presse bi aide bi ah, presse bi waaw non non waaw may ma ñëw xam nga yéen da ngeen a néewul doole ah no déglu ma no xam nga aide ñun ko war a jox mhm. ñi nga xam ne amuñu liggéey ñi nga xam ne tey ñoom la ñuy yóbbu ci kaw gi bourse familiale beeg ñooñu ñooñu ñoo yeeyoo aide mais kun dem ba fay loolu deux milliards yeyoo aide TFM gee tey mooy ëppale ci aide bi parce que li mu àndoon ak Macky Sall télé alaaj Ndiaye ba ca topp topp ci télé ndaw ndawaan yi doog a ñëw te ñu ko moom ñëpp ña nga mbuur di mbay jënd fa ay kër ak i sato yor ay building ci dëkk bi yor ay milliards ba pare bu ñu wootee 6 milliards aide de la presse ñoom ñaar ku ne jël 1 milliard li ci des ñu séddoo ko yéen gone yi yu sew yi aide de la presse moo jaaduwut néewuloon doole bañ leen di jàppale nañ ko ba aide de la presse moom fekk dañut waxuma la nga liggéey ba at mi jot nga bañ a fay impôt mais aide de la presse donc bu delloo ci sam xel da ngay foog ne yow yaa gën nit ñi déedéet yéen ci sénégalais yi ngeen bokk da ngeen yor ay seen société di bénéficier woo te li ngeen di am seen kër ngeen ko jëmee joxu leen ko état yóbbuwu leen ko ci hôpital yi dimbaliwu leen sénégalais yi nan waxante dëgg alxaqu saabitu wa amal baatin non non defal ndànk non defal ndànk ma wax la gaa yéen a ngi wut ay employé di contribuer ci réew mi mais am na yeneen société yu fi nekk yoo xam ne ñoo leen ëpp ay employé te joxuñ leen aide. te te da mais problème mu impôt. da dégg xam nga am ñoo xam ne aussi ñu ngi fay impôt normal. mais mais xaaral exemple man mënu ma waxal ñeneen ñun en ce qui Sénégal 7. Hmm. kenn indilu ko fi dette fiscale. mais dama ne. vrai ou faux. man waxaguma ñëpp. waaw je sais non dama bëgg nag nga def la part. non non dama ne man waxuma ñëpp. daanu dajut suuf waaye aide de la presse bi yéen ñëpp a koy mos. mais c'est mais so lu tax mu normal. c'est normal da nga néew doole parce que tey ñu ngi jël di ko jox. waaw léegi aide aide nu mu pourquoi leen ko waaw léegi aide mu tudd nu sarax ci olof. est-ce que boo déggee ñu ne dañuy waaw non non mais mais noonu la tudd noonu la tudd ku néew doole ñu lay ñu lay may dara pour nga am doole yow la la Sénégal set boo génnee fii ñuy saraxe ay soos wala ñuy saraxe ay yére wala xaalis doo dem jël parce que soxla woo ko noo xaara tuuti ma wax la aide de la presse ay caaxaan la ba pare teguñ ko ci démocratie bu njëkk politiciens yi fi nekkoon dañ koy téye médias yi pour ñu leen di waxal lu baax ak xam nañ ne tey jëf yu ñaaw yi ñuy def ci réew mi ak détournement yi presse bi tamit ay nante lañ dañ koy xam seen niveau egg na ci ñu xam ko loolu la saañi seen gémmañ ci nag wi pour ñu noppi comme ñii fi nekk nag sàccatuñ aide la presse nañ ko dindi ay caaxaan la waaye dama ku ubbi sa place liggéeyu ay non xaaratu presse yi fi nekk nii tey ñoo doon topp di bu doon muy presse en ligne muy presse classique. dama ne ci terrain bi mu gënee métti. ñun waaw mais lu ngeen ci doon wut ay vie. mais bu doon looloog loolu kay booy buy. non non attends mais non la non waaw non xaaral ma xam. mosuleen a dem waaw waaw non déglu ma mosuleen a dem toppi ci fu ngeen dul amee ay vie kon seen bopp ngeen fa nekkal ñaareel bi. bu dee loolu mooy da ngeen ñu doon topp moo tax ñu war leen a jox aide de la presse. mais foo waxee mais yow lu tax nga ne booy bi bokk. aide bi waruñu ko dindi parce que parce que du yoon ma ne la ñun ñëpp ay sénégalais lañ. waaw mais booy te tey presse bi dafa am rôle bu important bu ñuy jouer ci population bi que nit ñi ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu ndax des fois nga gis sénégalais bu toog ci ruqam am lu ko metti presse bay dem dékk ko micro am na wala amul. loolu am na waaye da nga may déglu boo pare mais comme ku bokk Pastef ñu tëjoon ko un an. Mhm. moo mën a génn. saaga autorage moo si sara yi ñu jël ko def ko ci kaso bi waxuma la aide dala waxuma la presse ba nga xam ne da doon caméra rek di diffuser bu demee am ay viom nañ waxante dëgg comme ñi bokk Pastef ñoo jàdd yoon ñu tëg leen ci yoon aide de la presse kenn mënu koo justifier ñi ko fi créé waa presse bi lañ bëggoon a jox seenu nar ci nag wi te xamuñ ban yoon la ñuy jaar aide de la presse ay caaxaan la ñi ñu koy jox ay milliardaire lañ yéen moom waxuma yéen ndax ñu ci ëpp parce ñu ngi ci ay jafe-jafe seeni non non non non non defal xam nga daanu dajut suuf su ma waxee presse bi nga xam ne ñëw ëpp doole tey yow fa ñuy séddoo aide de la presse yi ñu gën a néew la ngeen di bokk tey tele bii booy xool bi combat bi gënee metti kat yi ëppoon fit dàqa wax fii lañ doon waxe kon yéen seen tëddee njaaxaanaay kenn waxu ko man du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu mhm. Sénégal set kenn mënul xam ko ko moom ndax tëddee njaaxaanaay man loolu laa gëm yàllaa tax nag may wax parce que man lu ma gëmul du ko wax man sama bomb yi ëpp bu dee automique wala bomb euh, bombardier fii laa ko tiiree kon yéen bu ngeen fareeg bu ngeen sorog xàmmeewuma ko waaye aide de la presse ay tappale la nan ko rocc ba mu set te ngeen di fay impôt comme tout le monde xaaral tuuti ma wax la man defal naa may ma ñëw defoon seen rôle ñoom fay seen dette yi ñoom impôt lañ nekkoon waaw parce que defoon nañ seen mais non dafal ndànk la Sonko lan moo ko jëlee impôt dañ ko faa lan moo tax ñu dàq ko ah, xaw ma ko ah. dafa dénoncé ñu dàq ko waaw kay lu mu dénoncé la du dëgg ah, la nga xam ne tey bëggoon nañ ko koo defloo ay kilifaam lànk mhm. ba mu ñëwee ñu bëgg koo defloo mu lànk looloo tax ñu ne booy bii day yàq parce que kii suñu yax gii nga xam ne heure buñ ko bëggee seeñu mu xëpp ci suuf nan ko dàq mu génn parce que kii dañuy fontoo man Sonko bi mu bàyyee impôt damaa sant man bu njëkk mosuma d'accord ci benn euh, benn société sénégalaise fay impôt man mosuma ko mosuma ko d'accord mosuma mhm. d'accord man benn ñu redresser benn société xam nga lu imagineel nga dem fekk benn Sénégal benn Sénégal set muy employé lu woon mille personnes nga redressé ko sept milliards mu jox la set milliards yam yoroon daanu ña fa daan liggéeyee perte seen liggéey dem chômage ba pare nga jël ko def ko trésor public mën soor fay jàll ci ginnaaw ne ko toññet jox doomam mu jënde koy nag ñuy rattee naan loolu ñoom ñu téye woon ko di ci fay sénégal yooyu moo gën mais bu ñu demee ba nga xam ne nag loolu njiit yu jubadi yi jóge nañ fi indi nañ fi njiiru jub képp ku jëndub tàngal ca bitig ba na ci état bi dagg impôt parce que bu ñu daggul impôt dara du sotti te dëkk bi dama lay gis nga ñii fi ne gafaka yi amul xaalis la fi nekkoon politiciens yi sàcc nañ ko dugal ko ci kaaw jaaykat yi waaye yow dama ko damaa nekk damaa nekk ci ay société man yu may liggéeyal hmm. Sénégal yëpp xam man dama nekk ci baromètre bu may natte damaa nekk ci industrie boo xam ne dañuy xëy di am lu ñuy jaay te weer wii dafa wàcc vente bi dafa wàcc mhm. banques yi boo fa demee xaalis amatu fa lenn képp la ñii fi nekkoon ñoo sàcc lu réew mi dugal ko ci kaaw gi lu mel ni deer nga xam ne tey daanaka se ba fa nekk matul 60 milliards ka fa nekk 50 milliards yépp ñu ne ko anam mu naan ña ma ko joxoon dugg nañ ci gaal gi jën yi lekk na leen xam nga ne te bokk na ci sociétés yi gën a néew doole mhm. mais yeneen sociétés yi boo fa demee lu gën a pire nga fay fekk mhm. te kon cest à dina métti weer wii dina métti weer wa ca topp dina métti. kon léegi yow eh, kaddu Madiambal noo ko mën a interpréter. waa dama ne kaddu Madiambal yi moom Madiambal li muy wax xam na ko li muy wax mooy impôt moo daawul fayeeku euh, maanaam këru tasukaayu xibaar yi parce que dañu bëggoon bu ñuy li li ñu xam war koo wax sénégalais yi ñu fexee ba duñ ko leeral ndax TFM bu demee bay taxaw di wax naan fee am amut ndox. dëkk sàngam nangam dëkk sàngam am nay jafe-jafe loolu man bi ko TFM di wax damaa yaakaaroon ne onde bi daa sensé biñ fii ne mosuñu koo wax comprendre la leen téye woon ba waxuñu ko nag la sëriñ ba waxoon ku loog dangay ngay logg-loggal moo ci nekk logg-loggal gu mi tee taxoon nunguwu ñoo wax Sénégal réalité ban demee ban rocc yax gan yoroon di seeñu moo tax ñuy tëb di wax mais na ñëpp fay impôt aide de la presse nañ ko rocc loolu moom dama ci insister di ko wax même bu fekkoon ne mbirum démocratie la sax wala mu yell wala mu jaar yoon waruñ koo xañ yeneen société yi di ko jox moom kese parce que li ñuy liggéey ci seen poche la jëm. ah mais mais mais yow yaa wax TFM mais dégg nga xanaa déggoo sorti bi Bouba Ndour def pour leeral ci côté boobu noonu. dama ne boppam lay boppam lay waxal rek. ah non si mais xam nga tey TFM ak iRadio ITV wax dëgg yàlla. non non ñett yee sax ñoo gën a fas xam nga béja bégaan moom. Euh, kii nu mu tuddati ñuulu ñuulut xeesut Bougane ñee moom dañoo dañoo ne ñun dañoo ànd ak Macky sàll lum ñu kute baax na bu Macky sàll defee lu baax ñu ne baax na bu defee lu bon ñu ne baax na mais kee moom doo xam lu muy wure kee moom wure wure da wure Bougane mbiram dafa lëndëm ko moom mënoo xam ban tànk lay fecce mais ñee carrément dañ ne ñun Macky lañ àndal lum ñu kute baax na. yàgg na ko wane. ci lan. ci non xam nga tey Ablaye Wade dala daan fekk ngay politique nekk biir Pastef exemple quoi nekk ci beneen parti mu ne la bàyyil parti boobu nga ñëw ànd ak man ma neexal la wala ma jox ay ay privilège waaye Macky Sall dalay fekk nga nekk ci opposition bi mu ne la toogal ci opposition bi di ma fa defal sale boulot saar yooyu nag ci ci mbir yooyu lañ nekkoon nañ waxante dëgg mais tey TFM ak i rajo premier mois bi fi Macky Sall jógee mënatuñoo fay am crise mais fan lañ leen jël jële mooy daawuñu fay impôt ba pare seeni i salaire dañ leen ko yoraloon affaire bi leer na su li li olof Njaay di wax naan bu yàb bu njaab yàggee nga war a feeñ lu tëw xam daa yàggut mais fii lu yàgg rek dina feeñ daawuñu fay seen i lempo ba pare état bi da leen doon jàppale di leen jox ay aide pour ñu koy jàppale pour di jaxas sénégalais yi pour ñuy manipuler sénégalais yi loolu mooy dëgg biñ demee ba loolu jeex nag jafe-jafe yi ñëw taxaw même bu fekkoon ne kër ga dafa war a détruire ba tëj gënut yeneen sociétés yi tëj ëpp leen ay employé ñaata entreprise moo fi tëj mais man li may ñaan état du Sénégal mu góorgóorlu ba société yi bañ a tëj waaye mu góor góorlu aussi ban fay mooy xam mu doon moratoire nu am moratoire ak lu mu mën a doon rek waaw waaw ak lu mu mën a doon rek parce que justice da koy def leneen da koy def comme ni ñuy defee bor kañ nga mën a fay am nga salaire cent mille ameel nga nit ki ñaata cent mille yi mën nga ko ci jox weer wu ne junni nañ leen defar moratoire ba pare gunge leen ndax bu dul dara am na ay sénégalais yu fay liggéey même bu fekkee ne dañuy bëgg a taar réew mi wala ñuy jaxase réew mi mais teewul am na ay sénégalais yoo xam ne ña fay bénéficié wu yor fa seen njaboot kon na leen état bi redressé ñu xam ñaata lañ état bi weer wu jot xool liñ ciy dugal aide de la presse buñ ko mënta maasale def jox sénégalais yëpp aide ñu yemale ko fa xam ne du dëgg du yoon te maanaam ab laaj la rek boo xam ne dañ ko doon saañe bëtu yenn sénégalais yi bëtu bëtu yenn médias yi loolu laa gëm quoi waaw jërëjëf kilifa gi. Mhm, jërëjëf moom nañu mbégte dalal la. Mhm. émission bi moom neex na macha allah. ma mhm. nga tàggatoo gaay ba beneen yoon. waaw li may tàggatoo rek mooy maa ngi nuyu sénégalais yëpp di ñaan Ousmane président basiiru Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko jafe-jafe yi ñu fekk ci taabal ji. noonoo non président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre. le premier ministre président Ousmane Sonko parce que mooy président parti Pastef mhm. te ñun président lañ tàmm mhm. comprendre nga ñu gën a geesu ndaw ñi mhm. taxawu ndaw ñi ci surtout ci mbay mi bëggloo leen àll bi def fa lu tax ñu mën faa delluwaat surtout loolu mooy pression bi ëpp ndax 60 ba léegi ñi am tur ak milliardaires yi ak homme affaire yi ñoo daan dundee réew mi kon ñoom mën war nañ leen a mën a pose mooy patron presse yenn yeeg ñu pose leen ñu dal def ndànk may gone yi ak jigéen ñi néew gu doole ji ñu soqali leen tuuti ci mbay mi gunge leen bi max banque yi ñu lebal leen jox leen ay titre foncier ñu gunge leen parce que loolu mooy jàmmi réew mi te mooy dalal réew mi mhm. comprendre nga beneen bi mooy ministère yeeg directeur yeeg ñu gën góor góorlu toujours ma ne leen lii damaa bëgg ñu jël ko bu baax a baax a baax a baax lal la njoowaan goo xam ne bakkan a rot tax nga toog boo ca toogee waroo njoowaanu te yi seen seen seen seen seen direction yii ak seen ministère yii ñu leen jox bakkan la jar bu dee mënuñoo ñàkk a toog ci banque bi bu nu wéeru nan toogee nii ndax Sonko ak Jomaay koo ci gis buy dox day mel luy daw kon waruñoo fal kenn muy nelaw loolu nag du caagi ne dama cee gis kuy nelaw waaye ministère yi responsabilité bi am Moustapha Diouf Lambaye moom la am ndax damaa demoon ci dëkki àll yi ne leen su ngeen falee ñii fii ñaari at ku ci ëmbati ba toll ci war a wasin ndax da ngay romb ci dëkk dégg sondeel du fa am nga dégg ku ne ci néegu ñax bi naan yàlla tiifu yàlla tiifu nga yaakaar ne dañ koy agressé fekk day am doom des fois fa muy amee doom lay faatu ndax hôpital bu sori wala ñu teg ko ci sareet muy rëjëng rëjëng ba mu ba mu faatu ci yoon wi wala la la nekkoon ci biir bi am problème ma ne leen nag jomaay ak sonko ak sun pétrole ak gas bi bu ñu tegee mbir mi ci yoon man ngeen a am ambulance médicalisée ñu fekk leen ci dëkk bi jël si leen ngeen am doom ci jàmm ak salaam comprendre foofu lañ bëgg Sénégal egg fi pour ñu mën fee egg nag il faut dëkk bi ñu jub jubal jubanti te liggéey te gën a góorgóorlu beneen bi tamit média bi baax na mais ña nga xam ne ñoo yoroon communication bi démb ak bërki démb ñëw doole lool daan génne li ngeen doon def lépp nañ leen gën woo ci procès bi surtout gone yi tiktokeur yeeg yëpp ñuy jege ministère yi jege direction yi liggéey bi ñu jot liggéey mu rafet ñu koy génne parce que ñaari weer lañ fi def mais nag jubbanti nañ fi ay mbir yu ama am solo yoo xam ne mënoon naa bañ a am ci 40 ndax pouvoir yëpp sama loxo la nekk waaye kaay leen ñu dem ñaajo jam ñaajo waxtaane ko bu doon fukki pouvoir ngeen jël fukki yeeg juróom delloo ko justice ma dese ñaar yi wala benn bi wala duma ci yore dara loolu président la république daawu ko wax président bu fi masaa ñëw lépp luy ñoŋal wala lu lay dooleel da nga koy dox waaye kii ku ne xam na ne moom daanaka day witte ci boppam di dooleel ñeneen loolu nag ku bëgg defar moo ko gis nga jiw wi taxawaay bin ci am ànd ak armée bi yóbbu ko soldats yi yanu ko egg wàññaat ko bu njëkk da ngay nekk ci dëkk naan opérateur économie laa am fukki CIE fukki CIE wala trente kenn da koy am te yépp ci benn carte d'identité lay teere ji naan opérateur économique tëdd fii ci noor ci kii ci Radisson nga xam ne nooy nepp biris bu baax di la upp ngay lekk say gàmbaas te naan opérateur économique te boo demee ci àll ba xam ndax xamoo tàngoor jël ñuy jël ay deux mille tonnes di la ko jox nga koy mm, tëdd fii di nàmp say cuuc mais ma ne yooyu jóg na fi ku bëggati dara da ngay dem liggéey vraiment dëkk bi sensé na fa nga daan dem ñu naan la boo amut cent mille doo am euh, carte d'identité wala boo amut cent mille sa passeport du génn wala boo joxewut dara nangam yooyu amatu fa kilifa ya fa nekk woo nañ ña fa daan nekk di jël ger ne leen lii ku nu gisati nga def ko ci kaso nga jëm foo demati ñu la ñu la daan manqué de respect léegi dañuy dem boo nee saraax ñu ne la salaamaaleykum loo bëggoon ñëw teeru la tatagal la us Macky Sall mii nga xam ne nag ak politiciens yi nga xam ne depuis soixante ñoo ngi fi jël seen tànk yi joggi ko ci tàpp président Ousmane Sonko mi wax ba tàggale ñoo Macky Sall lool képp bilan la waxuma laa liñ fi jot a jubal liñ fi jot a jubbanti wàññi ceeb baax na wàññi diw baax na waaye fexee ba justice jaaru yoon ku feebar faju li sénégalais yi war a jot néew gi doole ji ñi ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu doy na sëkk jubbante yaa ngi dem mais na nañu gën a góorgóorlu xam ne lu ñu yàq ci 60 ans kenn mënu koo defar ci ñaari weer réew mi weer wi miti na weer wa ca toppit day miti ndax gars yi la fi nekkoon ñu war koo régler réew mi ne nañ ko fa xuus lu leer laa la wax dëgg du neex Ousmane Sonko dëgg gi mu wax sénégalais yi ne leen bi ma xoolee ci 15 jours yi ceeb bi indiwuñu ko fi te fa muy jaar pour ñëw fi ay jafe-jafe nga fa kon mënaguñoo wàññi dund gi dëgg googu moo wax sénégalais yi moo tax kenn sa jëttu ko xeef ñëpp ngi dem toog di ko déglu kon dëgg rek ci la ñuy yore nguur mënta neex ci weer wi mënta neex ca weer wa ci topp ndax la fa nekkoon gaa yi ne nañ ko France te ba dañ ne ko bu nekkoon France jamonoy Ablaye Wade da ngay sàcc milliards jënd oto tabaxlu yëf yi circulé mais léegi da sàcc 4 milliards dem suul ko ci sab mais li daan circulé ci ci atmosphère bi di circuler ci bitig yi bu dee circuler tut ñi daan jaay soow doon jaay ñi jaay ceeb ñi jaay ñi jaay oto duñ jaay fi mu nii lépp taxaw parce que la fi nekkoon di war a kus néew gars yi sàcc nañ ko te il faut ñu suul ko ba xam nu seen ëllëg di mujje mais fi mu ne koo ci gis ñi ngi daw fu fu ne da ngay nit sax mu yorob musuwaar naan la koo xam mu am pexe ci Sonko way hmm? ma ne la Sonko mooy kenn pexe ci boppam loo jël daal demal trésor verse ko fa jël sa sa sa kii Sonko dem na dire di sa nit kookat jël ay milliards tegal ko ne ko jëlal def sa poche mu jël milliards ya verse ko euh, trésor public ñëw jox ko facture bi ne ko maa ngi xaar li ci des ku mel noonu dina dem ba nekk premier ministre lépp wër la lépp yomb la ngay def naka sudul noonu nañu góor góorlu na buur mosal nu boole ci aar nu teg sàmmal ñu Sonko jomaay ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaajëf amoon nañu mbégte ak contentement dalal ko di defal mention spéciale euh, équipe technique muy euh, Fallou Ismaïla Djili mbay maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci jàppandi bi di def mention spéciale sama petite sœur muy euh, Khadija Wele donc moom mooy jàpp fan yi yëpp ci perruque yu nice yeeg yooyu donc képp koo xamante ne bëgg nga ko bëgg nga defar sa perruque wala nga bëgg habillement wala maquillage Euh, mun nga woote ci 77 775 98 74 77 775 98 74 bu ko defee numéro bu baax baa ngi noonu ngeen euh, préparé tabaski bi def seen périg yu rafet yu nice bu ko defee euh, ngeen mën koo dund ci jàmm ak salaam rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf